ginnaaw bi askan wi fësalee ab day national bi ñuy amal ki tey ci aljuma ji loolee waral ñu daal di doxantu seet si ki nga xamante ni moo di Moustapha Guèye mu am xam-xam bu màcc ci wàll wi moom mu ngi ciy àddu. waaw defe naa day national bi maintenant c'est le peuple qui a décrété moo décrété day national parce que c'est véritablement moom dafa am dafa am ay normes ba état ba léegi sax waxagul ñaata ñaata moo doon donc ñun dañuy calcul yu nit ñi def rek ñoo jàpp ni am na 400 500 man jàpp naa ne na loolu. donc bu peuple décrété deuil national dañ koy saluer déjà dañ saluer initiative bi bu jógee ci réseaux sociaux yi parce que maintenant réseaux sociaux yi presque jeunes yëpp a ngi ci te jeunes yooyu ni ñu ressentir euh, euh, degré de coono bu nit ñi daj ak métti bu métti du am amaa ne moo tax ñoom ñu jël initiative décrété deuil national lu ñuy saluer bu baax a baax a baax mais nag on comprend aussi que l' nekkagul ci dynamique décrété deuil national parce que peut-être reconnaître gul chiffre yi nga xam ne moom la ñun moom la ñuy wax ne 480 mois wala 280 mois même si nag état bi dafa war a def mu mel ni yu normal parce que état am na capacité xam ñaata ñoo dee si si si géej gi. bu defee enquête sur le plan local nii dem gox bu nekk rek mën na supposé ni fu nekk am na 100 fii am na ba ñu mën a xam ñaata moo ñoo ci am en conséquence parce que man jàpp naa ni bu ñu nee coronavirus 300 et quelques morts coronavirus 6 à 7 mois chaque jour ñu ne ñu tant de morts tant de tant de blessés war nañ lii loolu tam bu ñu nee 480 ci day ci ci ci mbënd bi ci ci euh, immigration clandestine bi laaj na même même ñu toloolee même kii parce que boobu mu ëpp sax fu mu ne nii donc état war na réagir dem defi les enquêtes nécessaires xam ñaata ñoo dee pour mu wax pour mu informer peuple bi mais nag li c'est une très très bonne initiative éveil de conscience la nit ñi xam ni y a quelque chose ne ñooy le bras fort a tabax dëkk bi ñu ngi dee ndànk-ndànk di dem di génn kii bi di génn dëkk bi dee te loolu nag moom comme tey c'est maa ngi ne je suis noir pour marquer l'événement comme comme tout le maa ngi ci réseaux sociaux yi ci laa ko yëgee ci laa ko gisee. waaw du ma ne ségrégation parce que chaque mort compte quoi chaque mort est importante nit moom nit kese la. te nag nit nag day am ndombal tànk boo xam ne dina tax ba fi ngay toll ak man bi nga xam ne man fu ma toll bokkul amaana am na kilifa boo xam ne bu wàccee liggéey moom mooy ëpp doole sax

surtout les réseaux sociaux nit ñi am nañu droit conscience xam ne y a quelque chose am na lu leen metti am nañ dëy bu leen metti ensemble ñu organiser wu ne tey dañ ko def dëy ñaanal gars yi ñaanal néew yi et puis loolu mooy yoon sax déjà mais du ma wax ségrégation du ma du ma kii état moom mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci yëfam ñun ñun citoyen nañ nekk suñu yëf. état dama koy wax chaque jour état warul rus rejoindre un une demande populaire dëy bi nii boo xoolee si réseaux sociaux yi si réseaux sociaux yi c'est-à-dire ci géej gi amaan na ñun ñu nekk ci réseaux ñu ngi koy sentir mais boo duggee ci population bi nii la sentent pas véritablement donc état bi même bu nekkee réseaux sociaux yi lay am demande sociale la demande boo xam ne état waru am waru rus waru l'état ne doit pas avoir honte ne rejoindre une demande social même bu dekk lu woon décret national au moins mënoon nañ génn wax ci wala ñoom seen Twitter seen Facebook ñu wax ci def stag yi wane ni ils sont gis nañ ko yëg nañ ko wane ni aussi nit ñi nit ñi am na lu leen metti donc lu état warul état warul dus quoi ñun benn problème la ñu am te benn kilifa moo ñu ko wax fan yi rek mën nañu suñu suñu nguur dañ nekk en déphasage par rapport le peuple mu ne bu ñu dindee tapis rouge ak gyrophare rek dañ mën dellu sax parce que loolu moo leen dofloo boo xoolee tout temps tout ce qui passe dans le pays les gouvernants sont en par rapport au peuple c'est-à-dire ñun réalité yi ñuy dund bokkul ak ñoom réalité yi ñuy dund te ñoom mënuñu comprendre ñu réalité la ñuy dund un man par exemple peut être aw ma sax passeport je n'ai aucune ambition pour génn dëkk bi lu ma lu ma bëgg fii bëgg amee mais aw ma droit sax critiquer beneen jeune bi nga xam ne ni am na lu muy dund këram lu koy lu koy tax bu mu poussé mu dem mu dem mu dem voyager donc loolu kenn mënul kenn mënul ŋàññe kenn ne dama bëgg jël gaal gi dem parce que kuy dem jël gaal di dem demoo pour dee ah kuy jóg rek da nga dem ne man damay dem pour tekki tekki boobu boo mënul am réew mi te véritablement ce pays et les gens ci nit rek xam ne nit ñi sonn nañ mais nag du plus bas niveau au plus haut niveau du du local au au au central ñiy gouverner ce pays là xamuñu nit ñi lu ñuy dund. boo ñëwee ci mairie ngay commencé les maires de commune commune xamuñu lu seen dëkk di dund mu yéeg bañ état bi donc déphasage moo am ba nga xam ne ba ñu def deuil national il ne peut pas le sentir seen doom yi nekk ñu fi seen doom yi xam na mu koy wax rek fu muy nii tout le monde ñëpp bëgg voyage yow da ngay am moyen nga dem fayal sa doom mu ut mu am visa dem yow amoo moyen sa doom jël gaal gi c'est seulement ça mais dans ce pays là koo ko. ne ko kaay da ngay voyager mu topp la parce que ñëpp gis nañ ni dëkk bi pour nga teg fi moom c' est énormément de problème c' est mën nga sax ne c' impossible il faut avoir un bras long wala nga am nijaay bu nekk nijaay wala dara wala nga am sa la jàpp yóbbu la placé la te loolu nag ñëpp amuñu ko ñoom am nañ ko seen doom yi ils sont bien placés ils sont bien organisés ñu ngi leen yóbbu ñuy voyage comme ils veulent donc <laughs> ñuy bëgg dem voyage te jël jël avion gaal lañu mën a jël mais nag ils sont ambitieux autant que les autres dañ bëgg réussir tekki rek donc loolu nit ñi war a comprendre que bu ñu gaañu kenn ne nit dafay dem pour xaru ji les gens vont pour kenn du jug ne damay dem xaru ji ku jël gaal gi rek da nga am yàqin ne sama gaal na yegg ba ma ba ma réussir. waaw di leen wax sigil ndigaale parce que metti na trop véritablement am doom bu am 15 ans wala nga am doom am 20 ans ñu joxe xëy ne mu ngi ci géej gi gisoo koor gi gisoo kooram xamoo ndax yaa ngi dute. parce que tant que suuloo rek Sénégal moom tant que suuloo rek yaa ngi dute ndax mu ngi dund wala dee na même boo dëjee sax yaa ngi dund loolu c'est très très difficile ku nekk na ko santé ci boobu rek ñoo ñu may ñu yàlla may leen xolu muñ ba loolu ñu dépassé ko jeunes yi nag moom je crois que l'ambition am volonté tekki ñëpp ñëpp am ñëpp am nañ ko mais nag euh, nañu jéem a toog xool lu ñuy lu ñuy lu ñuy defaree réew mi waaw nañu xool nañu jéem xool lu ñu defaree réew mi ndax c'est possible réew mi c'est possible ñu defar ko quoi nañ nañ jàpp rek jéem defar réew mi tey bi nag <laughs> na gars yi wax ne il faut ouvrir les kii ba nga xam ne ku bëgg a voyager bu ñëpp bëggoon mënoon voyager dem di ñëw problème du am parce que man mii su ma mënoon dem France chaque jour ñëw du ma demee France damay ñëw du ma fa toog am amuñu benn solo ci dem France wala dem feneen ak wala dem feneen mais possible boobu see ñëw donc je leen encouragé ne leen euh, xam naa ñëpp mën nañ am désespéré mais jaru ko nañ garder espoir si nañ gëm suñu réew mi xam n mën nañ ko defar nuñ ko defar te ñoo ko defar suñu bopp pas ci ay kàddu Moustapha Guèye mu ngi ñaax askan wi waaye nag di ñaanal ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiitu di sàkku itam ñu gëstuwaat ndaw ñi bu baax a baax ba ñu am xëy ngir rekk moytu musiba gu mel ni immigration clandestine.